alors dama gis euh, nga ne euh, nga exiger nga ne na na DGE jox Ousmane Sonko ses fiches de parrainage après euh, à la suite de la décision rendue euh, par le tribunal de Ziguinchor. fan nga wéy yoon tribunal loolu la fi liggéeyam xam nga bu neem fi mbaxana doonee benn mooy bu décidé la mu décidé dañ ko war a def. loolu moo tax bu amee problème man ak yow bu ñu amee problème man ak yow. ak lu ñu xaritoo xaritoo ak lu mu mënta mel bu ñu demee tribunal dañuy jàpp ne bu tribunal attee la mu àtte dafa war a wér. donc ñu bañ a xaar ñu examiner recours yi. bien sûr parce que que ñoom ñëpp ñi ñi jàng droit yëpp te mokkal ko nee neen recours bi c'est pas suspensif. ñu rendre une décision de justice agent judiciaire de l'État euh, def recours. recours bi ñu war koo examiner du décision du suspensif. après ñu ne nañu yow nga ne dañ ko war a réinscrire parce que li ma la wax mooy d' abord on est en matière électorale recours bi c' est pas suspensif ñi jàng droit yëpp xam nañ mais est ce que DGE moom moo war a réinscrire non DGE du réinscrire waaw ah. peut être c'est xam nga DGE ñoom ca la ñuy dem pour laaj seen fiche réinscription bu waree am normalement c' est la DAF qui réinscrit parce que moo yore fichier bi DGE bi DGE ne fait que hériter d'un qui est traité ailleurs mais dans la même dans le même ministère. et c'est pas le ministère de l'intérieur moom moo demandé la radiation. bon généralement c'est comme ça et je pense bien que c'est ça. c'est le ministère de la justice dama moom mooy bind le ministère de l'intérieur pour pour dire que telle personne dafa am peine bu tëddee. non non non demeewul noonu war a retirer. demeewul noonu. man en tout cas moo fa nekkee. donc la war a noonu lay deme déedéet demewul noonu ñun ba ñu fa nekkee. Ah. ñun ñoo bind pour ministère de la justice jox ñu ñëpp ñi nga xam ne ñi ils sont concernés par les différents cas. yéen a bind. ñu tontu ñu bi ñu tontoo ci lañ jox instruction daaf mu appliquer les dispositions de la loi donc te yaakaar naa it processus bi noonu la demee. et mais dans ce yi ci c'est le ministère de la justice moom moo def correspondance sa concernait quinze personnes. au ministère de l'intérieur au ministère de l'intérieur pour diir que ñii dañ leen war a. Euh, radier euh, radier. Euh, waaw kon nag ministère de la justice yi moom moo waroon defar correspondance ne Sonko nañ ko delloo ci biir. gannaaw ay service am justice ñoo fa ne ñoo neen nañ ko delloo. donc du DGE mooy décider dugal ko. déedéet li ma la wax e. jox ko fiche e jox fiche parce que nekkul. ci ci ne non encore une fois da déglu tamit. wax ji bu ñu ko dégloontee rek dana yomb appliqué dang ne ministère de la justice justice le juge a décidé ne wartoon a génn sax kon delloo leen ko ma ne décision boobu warta am benn euh, benn recours taxut mu suspense mu am suspension comme comme comme on donc bu fekkente ne sur cette base là ministère justice wax na ko d'ailleurs li yoon bi wax mooy moom bu ko defee du koy jox adresse ministère de de la justice da koy jox directement l'autorité administrative parce que fii on am en matière d'élection la loi la donc ci principe bi yow jàpp nga ne noonu la waroon demee. waaw mais bu ñu nekkee ci cas boo xam ne ministère de la justice moo envoyé une correspondance. Bon. concernant quinze personnes ne ñii dañ leen war a radier après les services du ministère de l'intérieur ñu exécuté. mais bii pas nii la procédure est anormale ou pas non la procédure ne pas être considérée anormale cest dire que euh, un la justice mën na ko joxe comme ministère de l'intérieur moo na ko laaj mi ngi mel ni rek tey ma laaj la nga tontu ma wala nga jox ma loo xam ne yaa ngi doon xaar ma laaj la ko même chose la amul différence à l'arrivée par contre bii dafa wute. mais en tant que ancien ministre de l'intérieur bu ñuy wax mettre DGE au cœur de la polémique est-ce que les gens ils ont tort ou pas est-ce que DGE nekkul rek service boo xam ne euh, dañu koy instruire euh, mu mu mu mu def non c'est-à-dire que man mën naa d'accord ak yow que ne DGE moom produit bu ñu koy jox la parce que du moom moo koy def DGE daanaka gënu laa xam li xew ci fichier électoral bi fekkee accès di nga ci moom dañuy jël fichier électoral jox ko daaf mooy defar fichier électoral daaf mooy dugal mooy dindi même bu justice waxee ne dindil daaf mooy dindi bu justice waxee ne dugalal daaf ma war a dugal